BHS. Mhm. bu la joxee 10 millions. Hmm. mais 21 millions ngay fay. am na benn femme sax 12 millions lañ ko fayal te 3 rek la jël. du 3 millions la jël ñu koy fayloo 12 millions 12 millions. xam nga lu mel noonu ci dëkk boo xam ne location dafa cher. da nga naan naa jëngu rek. Mhm. am naa 40 maa ngi sama biir kër am naa soxna sama kër famille laa nekk. donc naa jël rek dem jéem a mhm. beeru ak sama soxna ak yooyu parce que kër famille yi yàlla xam doy na. dañuy obligé jël mais loolu bénéfice bi dafa dafa bari mais 10 millions 21 millions ko weddi. parce que ñun kayit lañ yor 21 million ngay fay waa léegi bu ñu nee banque baax na amal tax na ma am kër waaw ci yan condition boo ko amee ñun dañ ne. kooku est jarul ma jarul ma sax dem. lépp <laughs> di jënd par saako 3500. moo tax nag gars yi sulli ah. bukki yeeg sulli eh, sulli mais mais mais nag daa mel ni doxalinu banque yi dem na sax ba am lu mu jot soppi ci soxna yi boo gisee soxna yi koñ boo dem nga gis dañ ñu def seen lekket boobu defe naa lekket boobu est-ce que natt yooyu am na nu ñu koy organiser ba hmm. kenn ku ne eh, di nga am loo mos te doo dem ca banque ba. waaw kuy bëgg dee wekku. mais nag ñun tamit mënuñu cautionner baax na nag. pour mm-hmm. épargner. Mm-hmm. mais ñu muñ sañoon mu nekk banque ba xamul tax. waaw parce que xaalis bi bu desee banque ba. danañ ci danañ ci lebal femmes yi danañ ci lebal jeunes yi danañ ci lebal. entreprise yi ñu liggéey kenn mais bu ñu ko bëggee bàyyi suñu kër yi. ci ci koñ bi di ko ci di ko séddoo noonu noonu. Mm-hmm. donc euh, voilà baaxul ci économie réew. moo tax ñun banques yi li ñu leen critiquer critiquer critiquer dañ naan population bi yóbbu leen seen xaalis ñu xam ñu ànd na sax waa ngi dem daanaka parce que dese nañ presque 7 minutes te xam naa ne dañu war a tàggatoo euh, post situation poste poste mal gouvernance ak recrutement abusif ak politique xaalis bi moo indi poste tey si situation bi directeur yi fa jaar yëpp xaalis bi dañ koo jël bu mbaayee ko pasar pasare léegi nag mu nar a dàqulu ay père de famille ak ay mère de famille yoo xam ne yàgg nañ post jàng génn école poste di fa liggéey te ñoom defuñu dara doon liggéey normalement moo tax président de la république ñun dañuy rafetlu mesure bu mu jël changer directeur bi c'est vrai c'est tout à fait normal il faut mu changer ko mais nag on ne change pas pour changer booy changer da koy accompagner capitaliser recapitaliser dugal ci xaalis parce que mënuñu ni parce que poste du joxe crédit ñun sax détournement yi fa amoon euh, daf ñoo xaw a jaaxal ni ñuy jël 1 milliard 500 di ko lebal seen biir ñoom it am nañ ci part de responsabilité. Mm-hmm. mais état principalement moo ci gën a am part de responsabilité parce que 1 milliard 500 yi bëriwul. par rapport ak ñi fa denc seen xaalis seen i épargne. ak ñi nga xam ne seen i salaire moo fay jaar. Mm-hmm. fii may wax ak yow ni am na ñoo xam ne ba léegi may wax ak yow deux mois ngi fayekuñu. fayekuñu poste viré nañu fa mm-hmm. ci yeneen. ñoom deux mois. barki démb Ndiaye benn femme laa fa fekk muy yo yuuxu ci kaw di jooy. Mm-hmm. parce que dañ ko wóolu jox ko warugal. Mm-hmm. mu wóolu poste dugal ko ci kontam bés ba jot war a yóbbu. mu naan leen xaaral ma dem post bi mm-hmm. xaaral ma dem mujj bi dafa ñëw ba poste ba toog fa di yuuxu di jooy ne nañ ko jox xaalisam post boo dem léegi ay hangar a fa ne hangar kay kay dugg la ñuy jóge la di fa ñëw pour di ñëw ba Dakar pour fayee ko seen seen i salaire buñ ñëwee fa la ñuy fanaan parce que hangar lañ leen fa tegal ñu wut ay fanaan fa boo ñëwee bu dee salaire deux cent mille tey dañ lay jox cinquante mille la xaaral ba suba nga toog fa lekk cinquante mille suba nga ñëw ñu joxaat la beneen cinquante mille xaalis ba sonn nañu nañ fay nit ñi seeni xaalis parce que man mënuma concevoir état tax mais mais masse salariale un milliard et quelques mensuel ah recrutement abusif recrutement politicien lañu def école am poste am na école. bu ñuy recruter nañu recruter ci école bi. am ay poste de recrutement. ay poste budgétaire mais poste war naa weesu courrier ak yooyu. non ñun poste dañoo bëgg ñu maintenir ko en vie. mu am banque postale. parce que daf ñoo intéressé. mu méngoog jamono. mu méngoog jamono parce que poste tey mooy tax sax taux d' intérêt yi wàññeeku. parce que fii li fi nekk ay banque étrangère rek lañ liggéeyuñu Sénégal seen réew la ñuy liggéeyal ay taux 14 15 pour cent bu normalement di ko di wàññi taux bi di concurrencer yeneen banques yi bu yàggee yeneen banques yi dinañ wàññi seen i taux d'intérêt ñun daal vraiment nañu maintenir poste nañ ko sauver mhm. nañ ko sauver pour que usagers yi mën ci gis seen bopp mais mais amatoo compte ci poste yi euh, ci ci banque yaa ngi banque ba léegi banque yu bëri am naa ci compte mhm. mais poste la suñu compte ñun actif ne parce que patriotisme économique la ñun dañ ne balaa ñoo ibbi suñu compte feneen mhm. nañ ko il faut mu am compte ci banque yi parce que boobaa du mën a xam réellement la nekk ci banque te xam naa lu mu metti metti aussi doo bàyyi banque yi non du leen bàyyi te bu kenn bàyyi banque yi dañ leen toog ñun ñëpp xeex pour am ay banque yu baax parce que banque moom mooy këru économie mais ci turu faamal nga koy defee non ci turu ak non ah, que yow xam nga défenseur nga est ce que gars yi ñoo du ah, boo ñëwee gars yi ne la oh, affaire yi fees na. non non non waaw waaw waaw dañuy ñu ne la affaire yi fees na. loi bee ma ko autorisé. demal <laughs> fees nañ. buñ ma nee fees na da ma ibil compte parce que parce que loi bi loi sur la bancarisation moo ma autorisé. ma ibbi fii compte. ne la monsieur Cissé ah. on est désolé fees nañ <laughs> ah Cissé nii laa lay tàggatoo nii.